yenn laaj yoo xam ne dañ koy jéem a tënk rek ci wolof laaj bu njëkk bi moo nekkoon euh, lan mooy expliquer euh, convocation bi nga convoqué Chérif Ndiaye. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak euh, seen sant Chérif xale boo xam ne la Serbie lay lay joué étoile rouge de Belgrade mu nekk garçon boo xale boo xam ne pratiquement ren dugal na 20 buts def passe def 5 passes décisives ñu yaakaaroon ne que ni que euh, moment bi jot na pour que ñu woo ko ñu ngi koy dalal bu baax di ko ñaanal vraiment euh, mu egg seeg jàmm ak salaam te nga xam ne yaakaar bi ñu am ci moom vraiment mu wane ko ci ci ci saison bi yëpp ba incha allah que mu wane ko ak euh, maillot équipe nationale bi mais en tout cas ñu ngi koy dalal bu baax a baax na beneen laaj bi ne am na ñoo xam ne dañoo tàmmoon di ñëw si sélection bi ñu mel ni Boulaye Dia ñu mel ni Cheikh Kouyaté autres waaye bi paa gis nañ ne woowoo leen est-ce que jot nga leen woo waxtaan ak ñoom téléphone. waaw jëm naa jëm naa waxtaan ak ñoom muy Boulaye muy euh, muy Cheikhou euh, ñaari jours yoo xam ne la vraiment ci cadre yi nañu nañu bokk euh, d'habitude su ma jëlul su may dul jël jour du ma ko du ma leen woo mais je pense que muy Boulaye muy muy Cheikhou ay garçons yoo xam ne la def nañu seen i seen i seen i preuve ci équipe bi donc dafa normal tamit que bu ma leen jëlul ma war a woon a waxtaan ak ñoom donc loolu la ñu def waxtaan ak Cheikhou waxtaan ak euh, Boulaye mais comme ni ma leen ko expliquer rek du ay sanction euh, choix la choix du moment la mais di yaakaar rek ni que seen problème yi ñu am seen club muy Boulaye ak euh, peut-être tant de manque de jeu boo xam ne tamit moom la Cheikhou am ak fële ci ci clubam ba déwén seen saison bi dinañu gën a am ay temps de jeu pour que justement ñu mën a dellu si ci équipe nationale bi encore ma wax ko du sanction choix la te choix boobu je pense que suñu yaakaar mooy que choix bu baax la pour équipe bi. laaj bi ne naka ngay waajalee ñaari jongante yi nga xam ne dafa am solo lool ñaari équipe yi di euh, Congo RDC ak euh, Mauritanie bi nga xam ne dañoo wane beneen xaartaanu kanam ci ci Coupe d'Afrique fii ñu ñu weer. ñaari match yu am solo ñaari match yu am importance lu tax parce que tey Sénégal objectif mooy bu dem euh, Coupe du Monde. te xam ne ñu am na ay match yoo xam ne ay match yu am importance la du ma ne match yu décisif mais match yu am importance la ñaari match yi nag ci ci loolu lañ dugg mën naa wax ni que muy RDC tey bu ñu xoolee seen seen jaloore ci kan bi war nañu mën a am yaakaar ni que xam nañ ni que match bu métti lay doon donc euh, muy Mauritanie nga xam ne tamit suñu suñuy naatango nañu suñuy voisin nañu maanaam tubaab yi ñuy wax derby match derby la euh, match bu métti lay doon donc euh, ñun ñoo war a jël suñu jumtukaay vraiment concentré wu liggéey comme ni ko war a liggéey ci semaine bi yëpp pour que justement ñaari match yi ñu mën ko aborder di ñaan yàlla yàlla may ci ndam. kii dafa ne dafa settu ne ci joueur yi nga woo euh, gisu si latéral gauche de métier pourtant latéral gauche de métier yi bëri nañ ci lool lu tax woowoo ci kenn. waaw mais loolu choix la choix choix sportif la en tout cas lu ma yaakaar bu ñu am mooy que groupe bu ñu bu ñu convoqué nii am nañu ay joueurs yoo xam ne ñu ngi ci biir que absence ou Crépin ak absence ou Jacob mën nañ ko mën nañ ko pallier am nañu ay idée idée bobu nga xamné ne mom lañu bëgg mettre en place mais je crois que tay même bu sax amul ay latéraux de métier mais man gëm naa ni que liste bi amna ay latéraux de métier même bu sax jour yoyu yàgg na joué wuñu passe poste mais xam naa ni que war nañ mën a joué ci ci ci genre match yooyu c'est possible et puis am nañu yeneen yeneen possibilité aussi ci ci ci groupe bi

fépp foo xam ne joueur nekk fa nekk joueur bu baax la rek ñu ñu indi ko équipe nationale équipe nationale nag 26 six joueurs la 26 six joueurs yëpp xam nañ ni que xam nañ ni xel ni que 26 six joueurs yëpp duñu jouer loolu moom lu lu leer la mais loolu mooy équipe tamit équipe euh, ñëpp mënuñu jouer je crois que dina am ñoo xam ne dinañu joué match yi yëpp ñaari match yi yëpp peut-être moo am ñoo xam ne benn match la ñuy jouer moo am ñoo xam ne dix minutes la ñuy jouer moo am ñoo xam ne cinq minutes la ñuy jouer moo am ñoo xam ne du jouer je crois que lu gën solo mooy que képp koo xam ne staff bi choisir na la rek pour nga dugg ci terrain bi nga def si kéemte lay kattan justement pour que def li war pour que équipe bi mën a am résultat boo xam ne moom la ñëpp bëgg loolu moo am importance te loolu mooy solidarité ci équipe euh, te loolu la ñuy xaar ci suñu jour yi. di laaj bi ne ban jàngat nga am si jour Sénégal yi nga xam ne ñu ngi football ci yeneen championnat à l'étranger. waaw mais ñu ngi leen di suivre mais comme ni ma ko waxee rek mënuñu ubbi tamit euh, équipe nationale bi tanière bi.

du affaire quota je crois que lu am solo mooy que fépp foo xam ne doomu sénégalais mi ngi fa fépp foo xam ne joueur Sénégal mi ngi fa bu amee niveau bi mu ñëw mu nekk local mu nekk local expatrié wala mu nekk feneen ñun loolu xooluñu ko du loolu moom importance ñun discrimination boobu débat boobu je pense que ñen na ci nit ñi yoo xam ne ci journaliste yi seen yéen koy yéen a koy teg mais ñun amuñu problème boobu. yaakaar nga ne joueur sénégalais yu nekk ci à l'étranger maanaam bilan ban bilan nga def seen seen saison saison bu saison bu bu metti pour ñenn ñi parce que ñu bëri ci ñoom pratiquement mën naa wax ni que joué wuñu temps de jeu bu ma yaakaaroon ni que dinañ ko am amuñu ko mu am ñoo xam ne tamit ah wax dëgg yàlla euh, joué nañu lu bëri bëri bëri bëri mais loolu mooy constituer sélection sélection boo leen gis tey dina am jour yoo xam ne saison bi joué nañu lu bëri mu am ay jour yoo xam ne joué wuñu saison bu bëri mais je crois que lu gën a importance rek mooy que xale yi waa ñaari match yi nga xam ne match importance la pour Sénégal du mën a concentré wu pour que justement yàlla may ñu si ndam di ñaan yaakaar di di ñaan yàlla nag saison bii di ñëw waa ñu am yaakaar ni que joueurs yi dinañ def ay choix yoo xam ne choix yu importance si seen club yi foo xam ne dinañ fa am tamit temps de jeu parce que temps de jeu boobu c'est très très très très important te tey constat bu ñu def mooy que plus ñuy avancer plus ñu gis ni que ci club yi suñu joueurs yi ñu ngi manqué temps de jeu donc euh, loolu tamit problème bu mag le parce que bu ñu équipe nationale moo am

mais nak dafa wara a gorgolu a voilà place yi duñ ko joxee place yi dañ koy mérité mo mo wara ñëfé ñëfee mu xam ni que poste bu mu nekk noonu poste bu am concurrence la Sadio Mané ngi fa Habib Diallo ngi fa Cherif ñëw na Boulaye ngi fa Abdallah Sima mi ngi fa donc euh, ay joueurs de qualité nañu am ay attaquants de qualité nañu am donc mo mo wara gorgolu woné wane fulla wara woné fayda que ni que équipe place bobu place am la mën na ko def te mën na ci jouer mën na ci def partition loolu du ci man loolu ci moom la